Seneinfo International Seneinfo International Seneinfo point net euh, bonjour dalee nag jàmm ci li gën a fës euh, ci xibaar yi euh, mercredi 29 novembre 2023 mu ne réinscription du du leader du leader de l'ex-Pastef sur les listes électorales dans sa une le rabat d'arrêt la dernière carte de Sonko donc suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nee na ses avocats brandissent la morale et l'éthique et quest la Cour suprême donc euh, loolu la journal bi xëy xamle ñu ñëw rek euh, si saisie bi nga xam ne ne euh, drogue dure la une saisie de près de trois tonnes de cocaïne saisie estimée à plus de cent vingt cinq milliards li nga xamante ne moom ki nga xamante ne moom marine national moo ko saisir démb fële ca port de Dakar donc loolu la journal bi xëy fësal à ñu des ci journal bi ba tey mu ne énième euh, incendie violent euh, à Petersen comme ni ngeen ko waxee démb rek Petersen am na lakk-lakk bu métti parquet démb euh, donc plusieurs cantines et une cinquantaine de véhicules réduits en cendre loolu la journal bi xëy xamle. ñu ñëw si les les échos les échos moom mu ngi mu ngi ñëwaat rek si rabat du leader de l'ex-Pastef sur le fichier ñoom avocat déposé nañ benn rabat d'arrêt au niveau de la cour suprême. donc journal bi si ñëwaat les avocats de Sonko visent cinq péchés de la cour suprême premièrement il s'agit de deux moyens principalement l'un est scindé en trois branches en trois branches euh, ils espèrent euh, que la haute juridiction va tenir l'audience dans une dizaine de jours le reste au moins deux juges ayant siégé lors du recours siégeront encore et ils ne vont pas se déjuger donc loolu la journal bi xamal si ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ay avocat ah, def un rabat d'arrêt au niveau de la cour suprême pour ñu réintégrer ko dans les listes euh, électorales ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers mu ngi xamle euh, surtout toujours dans les échos nee na de moi ils ont peur que je devienne le, le roi je ne lutterai plus avec les jeunes je euh, de Modou Lo Boy Niang moom ki nga xam ne ne moom mooy Lac de Guiers xamal na ne moom dootul bëre ak mbayu ndaw yi léegi moom objectif am ak lu muy ñu mooy ñi nga xamante ne mooy mbër yu mag yi ay ñoom Modou Lo ak ñeneen ñi donc euh, voilà loolu la journal bi euh, xëy xam ne tey a saa yi. ñëw si Walf Quotidien Walf Quotidien moom nee na euh, Cheikh Bamba Dièye candidat à la présidentielle on est assis sur des braises loolu la candidat bi xëy xamal xamle nee na nous avons trois cent milliardaires qui sont des fonctionnaires. donc journal bi loolu la loolu la xëy fësal ñu ñëwaat encore si maison des Nations Unies à Diamniadio Euh, journal bi xëy defal ñu si gëstu ne la charité mal ordonnée de l'État loolu la journal bi euh, xëy euh, xam xam ne donc ñu des rek si journal bi muy poser de question par rapport ak infanticide yuy xew maanaam jur jur rey wala jur sànni moom journal bi def na def na si gëstu bu yaatu yaatu di poser wu question ba xam ndax ñan ñooy auteur yooyu ñan ñooy def ñaawteef boobu loolu la journal bi xëy xamle tey asaa yi le quotidien moom euh, moom nee na lutte contre le trafic de drogue euh, pêche de corps de la marine comme ni leen ko waxee tout à rek euh, la marine nationale a saisi trois tonnes de cocaïne dans un navire étranger donc loolu la journal bi xëy encore fësalaat waxaat ko ñu ñëw rek encore ci lancement BRT bi donc BRT bi dina commencé en fin décembre ñu si ko nekkoon ci yéenekaay yi donc 121 bus ñoom ñoo doon démarrer ak BRT bi en fin décembre journal bi ñëw du ñu ko xamle. donc euh, avec euh, ak euh, aussi décision bi nga xamante ne moom lañu def après moom la avocat yi Sonko jël nee nañu après la décision de la Cour suprême les avocats de Sonko déposent un rabat d'arrêt donc loolu la journal bi xëy xamal tey à xamal ñu tey à sa une l'observateur moom dafa ñëw si le transport aérien ah, nee na Air Sénégal le dernier plan de sabotage euh, comme ni ngeen ko xamee Air Sénégal mu ngi doon rencontre ay difficultés ba mu ngi rencontre ay difficultés donc journal bi ñëw def si gëstu bu yaatu ba yaatu nee la réunion d'hier instruite par le président pour éviter le crash financier donc l'accord de partage de cote avec la ARAM et les discussions avec Air France et Air Ivoire l'avis des experts sur les limites et insuffisances de la compagnie comme compagnie bi mu ngi rencontre ay ay difficultés ay insuffisances donc démb dañoo amal ya euh, bu yaatoo yaatu doon si waxtaan pour xool euh, ba xam nu ñu mën a redresser compagnie bi journal observateur ñëw dañu ko xamal ñu ñëw rek encore si saisie de trois tonnes de cocaïne la marine euh, réussit le coup de l'année loolu la journal bi xamal mais xamal na aussi ni dix personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération là dont en sénégalais mën na sénégalais bokk na ci fukki di tuteurs yi nga xamante ne arrêté nañ leen voilà si kii boobu. donc euh, Francfort encore rek 121 euh, bus réceptionnés euh, pour le démarrage du BRT le mille décembre 2023 donc journal bi aussi ñëwaat na si kii boobu ak rabat bi nga xamante ne Sonko bu mu bëgg na ko avocat mi déposé nañ ko au niveau de la cour suprême journal bi ñu ñu xam leen ne rek ne rabat d'arrêt Sonko joue sa dernière carte les chambres réunies de la cour suprême auront le dernier mot euh, sur sa participation donc euh, li la ñu indi loon euh, si lu gën a fes si xibaar yi mercredi 29 novembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te di lañ ñaanal ñu yendu ci jàmm. Sene Info International